Serigne Ndiaye jiital tànk ndijoor Sele jiital ñu ngi noonu ci demi-finale bi ñoom ñaar ngi noonu Serigne Ndiaye jëli na mu bañ ndeysaan mu ngi ko bëgg a jëli daa bëgg a jaxal combat bi ndeysaan ñoom ñaar Sele Mele ak Serigne Ndiaye deux ndeysaan ndeysaan Lac Ramassène daan na fële wala déet Lac Ramassène daan na Lac Ramassène daan na wala daan nañ ko wala déet arbitre bi da leen woowaat arbitre bi woowaat jàppante nañ Serigne Ndiaye 2 bu faas ak Sélé ndeysaan ñu ngi noonu Serigne Ndiaye 2 bu faas ak Sélé ndeysaan ñoom ñaar xale yaa ngi noonu ndeysaan demi-finale be dina met ndeysaan combat baa ngi noonu dox ci diggante Serigne Ndiaye 2 ak Sélé Ndeysaan Serigne Ndiaye 2 Sélé Serigne Ndiaye 2 ko bëgg amee trois avertissement mu gagné Sélé daa bañ Ndeysaan combat ba du mën yomb ndax combat bi bu ñëwee fii ku ci nekk calcul ngay def Serigne Ndiaye ko bëgg a takk na ko takk na ko génnee na ko génnee na ko avertissement c'est am na ñaari avertissement deux boo amaatee beneen ñàkk c'est là boo amaatee beneen ñàkk Serigne Ndiaye deux ak Sele Mele Ndeysaan Serigne Ndiaye 2 ak Sele Sele mele Serigne Ndiaye numéro 2 bu Faas. ay sëñ Fallou Luc Nicolaï bu ñu nee l'homme des grands événements tey ku ñëw Mbour xam nga ko rawatina ñaliñ ñaliñ gii nga di nekk ku fi ñëw xam ne tey l'homme des grands événements plaqué na ko daan na ko daan ko Serigne Ndiaye daan na Sélé Sélé da ko mbot Serigne Ndiaye rocceeku gis lii nag mooy luur bu moom boppam.